di gërëm waa Médina Info. waaw jërëjëf. meruñu. c' de la passion c' la Médina qui parle. c' la Médina qui parle. Médina nag buñ ci wax dañ ciy wax ak dëgg ba ku gis yaakaar ne xëy na leen la du dara xeex amu fi. Mhm, xuloo amu fi dëmante amu fi mhm. débat d'idées la d'idées contradictoire mu neex Médina mhm. ñun mënuñu am ku gën Cheikh Ahmed Tidiane Ba sama baat ca kaw waaye ñàkkuñu fayda ñàkkuñu fayda ma déglu de ñàkkuñu fayda bay jël Cheikh Ahmed tijan Ba directeur général de la caisse des dépôts et de consignation un futur ministrable de l'économie et des finance un futur potentiel président de la République du Sénégal loolu lañ koy ñaanal Oui, bah, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. On a... Laisse-moi parler. Ah, mais vous le laissez parler quand même. Dis-moi pas parler. Laisse-le Adama. Dis-moi pas parler. Adama. Waxal waxal vas Ba. Trois trois la. ñun ba ñuy liggéey ba may liggéeyal Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Di liggéeyal Medina. Ah boobu ñun gisuñu dama ne ñun waa Medina. Président Abdoulaye Wade 2006 dafa créer CDC en 2006. ne ko mooy les PME et les parce que bu ñu demee ci banque yi kenn du leen jox xaalis parce que amuñu garantie beneen topp ci ñu ne ko il faut consigner tout l' argent bi nga xamante ne dañ koy jël di ko yóbbu ci notaire yeeg ci avocat yeeg ainsi de suite ainsi de suite nga téye ko beneen bi ci topp mooy toute infrastructure à but social bu nekkee dans une collectivité locale ou territoriale mbay lañ la nga nekk le premier partenaire financier de cette commune-là wala de cette localité-là pour nga tabaxal leen ko loolu lañu ko sant ñun doomu Médina tey ñu am chance am benn doomu Médina bu nekk à la tête de cette institution-là kooku dañ koy ñaanal yàlla Cheikh Ba dañ koy ñaanal yàlla bu jógee CDC. Mhm. nekk ministre de l' économie et des finances. jërëjëf jërëjëf ñaanaluñu yàlla Cheikh Ba. jërëjëf man damay profité ñu koy indi maire Médina. maire Médina Ousmane Kanté la keneen. damay am nga ci droit Ousmane Kanté. am nga ci droit maire Médina de l' la Médina. loolu la ñu wax waaye waxuñu la leen. merci ma ma bëgg ci pour daaneel damay sant di gërëm Médinois yi